أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إن شاء الله ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi jël dars tey ad-duruus al-mustafaada min qissati Shuayb alayhi salaam ginnaaw ba ñu jàngee histoire yonent yàlla Shuaybu dina baax ba ñu jàngee lépp ba pare ñu toog càmbar xool dund yonent boobu tudd Shuaybu lan lañ ciy jëlee tomb bi ci njëkk ci koy jëlee ci dund yonent yàlla Shuaybu mooy anna alxayaata la tastaqimu illa ida aasa ahliha ala sharci illahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tomb bi njëkk ñu war ko jëriñoo ci dund yonent yàlla yaa Shuaybu mooy dund gi du mën a baax lu dul nit ñi bu ñu dundee alquran ak sunna loolu ñun ñëpp dañ ko war a xam fas ko ne annal xayaata naka dund gi faaba annal xayaata naka dund gi laa tastaqiimu du mën a jub du mën a baax illa lu dul ida aasha ahluha lu dul nit ñi dund ala sharillahi wa sunnati nabiyihi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ndeke gis nga même Sénégal li ñuy rey sunu bopp nii ci kër kër yi mu jaral nit ñi sax ñuy def ay sacrifice di rey nit di rey ay nit ngir jël nguur gi wala dajeel bi lii lépp dégg ngeen li téere bi wax mooy dund gi du mën a baax lu dul nit ñi dañoo dund li yàlla wax ak yonentam dañuy sonal sunu bopp rek ñaareel mooy anna diin laa budda an yunazima kulla suuni xayatina min almuamalat wa sulukiyat wa axlaqiyat wa aadab li anna allaha taala qaal ya ayuha alladina amanu udxulu fi silmi kaf ñaareelu tomb bu ñuy jëlee ci dund yonent yàlla Shuayb mooy mbokk yi il faut ñun ñëpp ñu ànd xam anna diin naka diine la budda an yunazima diine rek moo mën a organiser diine moom dong moo mën a tax nit ñi jub loi bu ñu fi indi bu dul diine nit ñi duñu jub parce que loi boobu ñi ko tëral ay doomu aadama lañ ñoom ñi ko tëral ñooy njëkk a jalgati ñooy jékki-jékki na maa waxoon ñi ko njëkk a jalgati te loi yi ay ñoom ñoo ko tëral amma loi yàlla subhanahu wa taala nag ñëpp a ci yem ma da yàlla mu ne inil hukmu illa lillah kon mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala nee na bu ñu bëggee dund dund gu baax dañuy bàyyi diine organiser adduna bi kullu suunu xayaatina sunu mbooleem dund na ko diine làq minal muamalat ci jëflante sunu diggante na ko diine lal bu ñu jëflantee te diine taxul dañuy worante loolu moo am tey wor dañuy wor wa sulukiyaat suñuy comportement na ko diine lal wal axlaaqiyaat suñuy jikko na ko diine yor na ko diine làmb wal aadaat suñuy teggin na ko diine defar ndax yàlla nee na yaa ayyuha alladina amanu ee yéen ñi gëm ñu ne ah mu ne udxulu fi silmi kaffa diine ji dugg leen ci lépp nit ñi waa Sénégal tey bu fekkonte ne li ñuy wax ci ñoom dëkk la ne dëkk bi ay jullit lañ dañuy wax quatre-vingt-quinze pour cent lan lañ musulman loolu la ñuy wax ñu ne téeméer boo jël ñaata moo dul jullit juróom loolu mais loolu fañ la feeñ fan la feeñ njullit googu ñuy wax moo nekk ci dëkk bi fan la feeñ xool tey dëkk bi ni mu mel ñu ne la ana l'islam looy wax fan la nekk lii mu wax léegi nekku ci nekkul ci jëflante yi nekkul ci comportement yi nekkul ci jukko yi nekkul ci teggin gi fu mu nekkoon te yàlla nee nañu su ngeen bëggee am jàmm li ma wax moom ngeen di def mooy lii ma wax nii yëpp da ngeen koy tëral ci diine diine ji dugg leen ci lépp bu leen ŋarala seen tànk udxulu la wax udxulu fi silmi kaafa diine ji dugg leen ci lépp lépp lépp amul dugg ci teggi benn tànk bu ma neexee ma ne ma dem julli ji mais sama leneen ma def ko waaye julli gi moom mun naa koo respecté loolu du l'islam l'islam jullit bi day dugg ci lépp loolu la ñu aaya bi wax ñetteel mooy anna daaiya alsadiq la budda an yahtamma fi daawatihi biltawxidi walaqidati awalan li anna altawxid huwa aslu lusuli wa huwa alladi jaa bihi kullu alambiyai walrusul fala yaqbalu allahu min abdin ayu taatin illa ida kaana muwaxidan ñetteel bi ñuy jëlee ci dund yonent yàlla Shuaybu mooy su fekkente ne dañu nekk ay wootekat yuy wooteel yàlla di woo nit ñi di leen jëme ci àdduna di leen yóbbu ci yàlla subhanahu wa taala il faut ñu yittewoo mbirum woo nit ñi ci tawxiid balaa ñuy julliloo nit ñi balaa ñu leen di saraxeloo balaa ñu leen di ajuloo màkk balaa ñu leen di génnelee azaka balaa ñu leen di defloo lenn lenn lenn ci kaw suuf nañ leen njëkkat woo ñu kennal yàlla ba pare gis nga soo xoolee sunu réew mi bokk na ci li ko yàq nit ñi dañ leen a julliloo te defaruñu tawxiid yi nit ñi dañ leen a woorloo te kenn loowuñu leen yàlla ba pare julliloo leen te kenn loowuñu leen yàlla aj loo leen te kenn luñ leenoo yàlla lépp luñ leen def loo dañ leen koo def loo te kenn luñu yàlla loolu moo tax mbir yi du baax nit bu kenn lul yàlla bu jullee day sonal boppam nit bu kenn lul yàlla bu wooree day sonal boppam bu fanaanoon ci jàkk bi dëkk ci di julli guddeeg bëccëg fekk yàlla kenn wul ci xolam xelam day sonal boppam wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansour moo tax mboolem yonent bu yàlla mos a yónni lan mooy première lu muy njëkk a def mooy mu woote ci konal yàlla mu woote ci kennal yàlla ba pare yonent yàlla muhammad ñëw na mag nekk fu fukki at ak ñett kenn julliwul kenn wooru kenn aju màkk pourtant mu ngi woon biir màkk mais kenn ajul màkk mu ngi woon biir màkk loolu nit ñi war nañ ko bàyyi xel fukki at ak ñett nga nekk ab yonent di woote jëme ci yàlla kaaba gi jege la chaque jour ngay xëy di yaakaar na moom te nit ñi ajuñu fan lañ ajee ba ñu demee Madinatu Munawwara ba ñu xam ne léegi yàlla dugg na ci xol yi ndax yàlla jaral na leen ñu bàyyi seeni kër bàyyi jabar yi bàyyi tool yi bàyyi doom yi bàyyi bitig yi bàyyi magasin yi gàddaay nga gis ñu ne la inni muhaajirun ila rabbi ñu bàyyi lépp yàlla xam ne ñii léegi dëggu nañ mu doog a indi ibadaat yi mu ne Muhammad léegi mun nañoo mun nañoo aj aj mun naa nekk léegi koor mun naa nekk gis nga mboolem ibadaat yi Madina la wàcc wàccul màkk loolu julli ñi dañ ci dul bàyyi xel loolu moo tax kuy woote gis nga sunu rajo yi ñu dëkk di wax guddeeg bëccëg diine dëkk bi du jag du baax lu dul dañoo raxas xolu jullit yi ba pare bu ñu raxasee xol yi génn ci lu dul yàlla ba pare ba dugal ci yàlla su boobaa nit ñi jëflante yi day baax ndax jëf tey li su jëflante xolal tey laay dégg li ci rajo bi ñu ne ma benn 10 millions bu réer ci taxi ba léegi mu ngi mujj ci loxoy police lu tey laa ko dégg de 10 millions bu réer ci taxi diggante ñi yéegoon ak chauffeur bi ñaata yoon ngeen di gis ci dëkk bi ku lebal nit du ko fay ku tappale jaay benn terrain fukki nit jaay nàngam ñaata jëflante yi xam ngeen lu tax du baax parce que nit ñi koy def ragaluñu yàlla nit bu ragalul yàlla suñ ko dénkee réew du ko liggéey suñ ko dénkoon jab suñ ko joxoon jabar sax sëy bi du baax jigéen ji bu ragalul yàlla buñ ko mayee jëkkër sëy bi du baax loolu moo tax yonent yi seen mission bu ci njëkk mooy ñu fexe nit ñi ba ñu xam yàlla ba pare parce que ku ragal yàlla day dootul tooñ Omar ibnul Xataab bi mu jiitee dëkk bi danaan bàyyi ba guddi muy circuler di xool ñan ñooy yàq mu jëflante ak ñoom lenn bis mu génn këram di dox jege benn sàppaatu kër mu dégg waa kër gi di waxtaan diggante yaay ak doom yaay jaa ngi naan doom ji ci baat bu kawe sottil ci soow mi ndox ndax suñ demee ca marché ba suba mu jar boo ko sottee benn paan la boo ko defee beneen paan ñu am ñaari paan bénéfice bi bari daa Omar taxaw di leen donc ñu naan ko déedéet loolu Omar da koy tere te bu ko yëgee danañu caw te moom ngi dégg yaa ngi naan ko Omar nekku fii ku dëgër bopp nga munoo bàyyi ma lay wax nga ciy teg baat donc ñu naan ko yaay bu fi Omar nekkul yàlla mi moom Omar mu fi gis ngeen soow moom noonu la noonu la normalé kenn sottiwu ci ndox ñun tey am nañu ay alkaati est-ce que dëkk bi jàng am nañ gendarmerie est-ce que dëkk bi jàng am nañ douane est-ce que jàng na am nañu ay militaire est-ce que jàng na bu baax nit du nit moo koy contrôler nit mën ta contrôler nit nit day bàyyi xel yàlla ittaqillah haytuma kunt ragalal yàlla foo mën a nekk yàlla moom ngi lay gis mooy sa borom boo ragalu yàlla wallahi loo nekk da ngay def moo tax nit ñi borom xam-xam yi yonent yi bi leen yàlla yónnee li ñu njëkk a def mooy fexe ba nit ñi kennal yàlla ba pare nit ñi ragal yàlla moo tax ba ñu ragalee yàlla leneen lu ñëw rek day jag moo tax mu ne duaat yi la budda an yahtammu awalan bi tawxid limaada li anna tawxid huwa al aslu wa huwa alladi jaa bihi kullu al anbiyai wa rusul tawxid kennal yàlla mooy cosaan mooy birig bi ñuy teg tabax bi buñ ko ci tegee mu taxaw buñ gasoon fondement bi ba mu dëgër ba mu xóot ñu indi ay weñ indi béton indi birig indi lépp waaye nañ ko tegee baaxul bu luñ ci teg day daal ak lu mu mën a doon islam bii lépp lu ñu def fekk suuf keno gi baaxul day yàq julli day yàq koor yi day yàq aji day yàq jëflante yi day yàq tey Sénégal lu ñuy njëkk a lu ñuy njëkk a lu nit ñi di njëkk a mettitlu dañ naan dëkk bi nit ñi dañoo yàq li tax nit ñi yàq kan moo ma koy wax mooy nit ñi dañoo amul diine diine mooy defar nit ñi mara nit ñi yàqu comme amuñu diine foog dëkk bi yàqu bu fekkee tamit ki fi nekk buñ ko fi jëlee ki ñiñ fi indi du ñu defar diine bi day yàqu rek moom tamit nii rek dañ koy fal juróomi at yëkkati ko ba ci kaw ndulli ko ci suuf keneen ñëw du mos a jag ndax kii fi nekk noonu lañ defoon nee na kennal yàlla moom la yonent yi njëkk a woote kullul anbiyaai wa rusul falaa yaqbalu llahu yàlla du nangu min abdin jaam ayu taatin mboolem topp yi yàlla du ko nangu illa ida kaana muwahidan lu julli kennal yàlla ba pare mboolem yëf yi ngay def soo ko defee te kenn loo yàlla ci soxol yàlla du ko nangu da ngay julli ba pare malaaka bi boxoñ julli gi lem ko laxas ko ba mu dëgër daal la koy fëgg ci ginnaaw ne la dayyaaka allah kama dayyaata hadihi salaam ni nga sànke julli gi yàlla na la yàlla sànke noonu waaw moo tax nit ñi dañuy gën a sànk parce que dañuy sànk jaamu yàlla yi defuñu ko ni ko yàlla bëggee xam nga ne malaaka ku mu fëgg sa digg ginnaaw ne la ni nga yàqe jaamu yàlla gi yàlla na la yàlla yàqe noonu koy jagate kan ngay jagatee ci àdduna ku malaaka wax loolu kan ngay jagatee ci àdduna moo tax nit ñi gis ngeen ci jàkk yi sax dañ fiy sàcc ci jàkk yi laa dañ fiy sàcc ci jàpp ba pare ñëw ci jàkk ji dugg nekk sàppe premier wala ginnaaw ñu ne asalaamaaleykum mu daw ne nii jël jàll jàmbur yóbbu te julli si na julli si na kooku est-ce que pas-pas bi baax na baaxul xam nga lu tax dañ koo julli loo te rek dafaruñu xol bi moo tax julli gi baaxul yàlla lan la wax ci alquran inna salata tanha anil fahshai wal munkar julli day tere nit def lu bon kon booy julli di def lu bon ça veut dire que pas-pas bi baaxul mbokk yi ñeenteel ci lu ñuy jële ci dund yonent yàlla Shuaybu ñeenteelu tomb mooy anna man yuridu an yad'u qawman képp ku bugg a woo ay nit jëme leen ci yàlla defar leen ba ñu baax fala budda awalan kon li ngay njëkke an yataallaf qulubahum fexeel nit ñooñu ñu bëgg la fexeel nit ñooñu ngay woo ñu am ak yow jàmm fexeel nit ñooñu ngay woo ngay nuyonteeg ñoom fexeel nit ñooñu ngay woo nga am lante ak ñoom jàmm ndax kat koo noonu koo xam ne boo ko rombee doo ko nuyu su la woowee doo ko wuy su xewlee doo dem bu amee bànneex doo ko ndokkeel bu amee safaan doo ko jaale doo wax ba mu dégg la kon ku bëgg a wax ak ay nit li la yonent yàlla Shuaybu di jàngal ci dundam mooy nit ñi amal ak ñoom jàmm ba pare wa an yusna ala baadi jawanibil xayri wa an yusniya ala baadi jawanibil xayri allati yaraha fihim mu jéem li baax li mu gis ci ñoom li baax li mu gis mu- mu koy encouragé da nga dëkk benn waxambaane waxambaane bi xëy na sax lépp fa matul waaye wax dëgg yàlla duñ ko gis ah mu ngi jàpp mu ngi julli ji nan ko nan ko encouragé ne ko góorgóorlu nii la julli di mel góorgóorlu ci ni nga nekk julli day dem jàkk noonu ngay def jullit noonu lay def li nga ba- li waa ji baax la nga tagg ko ci sant ko ñaanal ko yàlla ne ko mu góorgóorlu ci leneen li nga xam ne dafa manqué hatta yata'allafa qulubuhum ba nga am xolu nit ñi soo amul xolu nit ñi gis nga yonent yàlla Muhammad bu demee bi mu tàmbalee di woote ak yonent yëpp soo ay bu muy ñuy wax dundam tey fu mu jeexee ñoom ñëpp ba ñu tàmbalee ku nekk ci ñun gis na amul lu ñu leen lu lu bon lu ñu leen deful mais ñoom du ñu foyante lu bon fa yakunu zalika baaban loolu day nekk bunt bu ubbeeku li duxuli ilayhim ngir nga mën a accès ci ñoom mën a dugg ci ñoom mën a dem seen kër mën a wax ak seen njaboot mën a wax ak ñoom mën a wax ak seen i mbokk wa stimalati qulubihim lil xayri wal huda nga mën a eggal ci xol yi lu baax ak yiw nit ñi bu fekkee da ngaa bëgg a dugal ci seen xol yi lu baax nga bëgg cee dugal yiw fekk doo wax ak ñoom amoon ñoom affaire nit ñooñu munoo leen woo ci yoonu yàlla ba ñu wuy si la juróomeel ci tomb bu ñuy jëlee ci dund yonent yàlla Shuayb mooy yanbaghi ala alal muslim iza raa munkaran an yughayyirahu mbokk yi li war ci ñun jullit yépp mooy ku gis lu bon da nga ko war a dindi su fekkoon ne sénégalais yi kenn ku nekk ci ñun soo gisee lu bon ci sa bët da ngay jóg taxaw dindi ko kon dëkk bi du mel ni mais dëkk bi li tax mu doy waar sax mooy ñi jiite diine ji ñoo njëkk a noppi ñoo njëkk a noppi Sénégal koo fi dégg muy wax ci mbirum diine ci kilifa diine yi tool bu ñuy bay la addiye yi ñuy laaj wala soxla boo xamante ne jëmul ci yàlla direct ci moom la jëm loolu moo tax dëkk bi alko te damay faral di wax lu bare bari ma ni ñetti nit ci Sénégal mën nañ ko régler ñetti nit rek ñetti nit mën nañ def ci Sénégal loo xam ne Abdoulaye Wade mënu ko militaire yi mënuñu ko gendarme yi mënuñu ko police yi mënuñu ko ñetti nit suñ ci joxe woon ndigal léegi ñoom ñett ci benn néeg joxe ci ndigal balaa bajaa bajaa fajar jot dëkk bi def jëkk dëkk bi jub cox jub jub xoj dëkk bi jub xoj ñetti nit rek buñ duggoon ci néeg joxe ndigal ne nangam ak nangam lañ bëgg ci dëkk bi lii la yàlla wax lii la yonent bi wax dëkk bi jub mais kenn du leen dégg loolu moo tax suñu problème ñu am problème te ay nit il faut ñu am ñu leen jiite yonent yàlla Muhammad yàlla daf ko yónni mu nekk njiit yonent bi génn na àdduna mu nekk ci morgue bi ñu denc ko suula buñ ko lu dul dañoo fal ki ko remplacé ba pare ndax diine ji war sa toog kenn jiite wu ko damay faral di joxe misaal lu bari ci loolu ma ni tey ñun jullit yi nekk ci Sénégal bu ñu dajale woon fukki junni ñu bëgg koo jox ki jiite catholique yi ci Sénégal am na kuñ koy jox wala amul kuñ koy jox kan moo may doon dama bëgg ngeen tontu de ma ne bu ñu dajale woon fukki junni ci Sénégal gii ñu bëgg ko jox ki jiite catholique yi Sénégal am na kuñ koy jox wala amuñ kuñ koy jox am na kuñ koy jox jërëjëf buñ ko bëggoon jox ki jiite catholique yi ci adduna bi yëpp. am na la amul am na bu ñu dajee woon un million ñu bëgg ko jox ki jiite jullit ñi Sénégal kan lañ koy jox non non dama ne kan lañ koy jox bu fekkee ci adduna bi nag la ñu dajale milliards ñu bëgg ko jox ki jiite jullit ñi kuñ koy jox loolu loolu ma ne yonent bi moo jiite woon diine bi yonent bi jóge fi suuluñu ko loolu Aboubacar jiite Aboubacar nekk ci sukuraat xam ne day dee naan ah. Omar mii de bu ma sañoon bu ma génnee àdduna ngeen jiital gis nga mu ngay proposé Omar te deewagul Omar ñu jam ko mu nekk ci sukuraat ñu tëral ko ci lal mu ne wàcce leen ma ci lal bi tëral leen ma ci suuf si suuf si ëpp yërmande amaana yàlla xool ma ma nekk ci suuf mu yërëm ma sahaaba yi ne ko sa ginnaaw muy proposé ay nit gis nga ñoom ñëpp kenn ci ñoom suuluñu la lu dul dañ laa wut dañoo wutu place bi mu pare ndax diine ji moo war ta diine ji chaque jour dafa war a am ñu ko jiite di wax nit ñi di jëfe mais bu ñu demee ba diine bi amatul ku ko jiite dëkk bi amatul kilifa diine buy wax nañ def nangam nañ bàyyi nangam jël ci dogu bu mat sëkk ni jullit ni kilifa di jëlee matuwaayam ci biir këram dëkk bi moo tax dëkk bi mel nii te nee na juróomeelu tomb mooy yandar yi alal muslim mi war ci jullit iza raa munkaran bu gisee lu bon an yughayirahu na ko dindi walakin waaye la budda an yakuna taryir bi hikma lu bon loolu ñuy dindi il faut am ñu ko dindee misaal laay joxe gis nga bëñ buy métti bëñ bi di métti ñu dem ci docteur bi nga xam ne moo ko war a buddi ndax da ngay ñëw rek mu jël machine bi buddi bëñ bi buddi ko déedéet li muy njëkk a def mooy fikir siiñ bi fikir ko ci kanam ci ginnaaw toog tuuti ñëw xool ko làmb siiñ bi ba siiñ bi dee ñu doog a ñëw dindi bëñ bi bu dee tamit tànk bu ñuy dagg la wala tànk bu damm balaa ñu koy dindi dañuy nelawloo borom kon ndeke dindi parce que dafa métti su fekkee loolu rek la ñuy fexe nelawloo waaj wala ñu fikir place booba mu dee mat sama ak dindi lu bon dindi lu bon tamit kenn du ne kër gi mbedd mi dëkk bi gis nañ lu bon rek ñu jël ay yar déedéet kenn du ko dindee noonu bil hikma ci xereñ lañ koy dindee dafa am benn góor bu mus a seeti taalibeem te ba mu koy ñëw yëgalu ko dafa bàyyi ba waxtu wii rek mu gaare sone buntu kër gi taalibe bi ubbi rek gis muy sëriñ diw mu ne subhanallah sëriñ bi na sëriñ bi loo duut waxtu yi na ko yow laa ziyaar fekk taalibe baa ngi organisé benn soirée ci biir kër gi ci biir salle xale yu jigéen yaa ngi fa musique baa ngi rëkk sàngara si mu ne ko waaw sëriñ xaar xaar daa nit ñi vingt cinq mille da ko sëriñ juróomi junne ngi nii nga dimbali ma rek dimbali ma rek tey dama xaw a am ay gan mais dama bëgg rek nga dem après dinaa la woo ñu seet beneen sëñ bi ne ko déedéet jóge naa jóg naa ba pare yow il faut ma dugg rek yencal juróomi yencal juróomi tey ma dugg mu ne sëñ xam ma def ko fukki junni ma ne ko fukki junni rek pour nga dem ba kii mu ne ko jóg naa rek bàyyi rek ma dugg mu ne tey ma ko dem ñaar fukki junni bopp mu ne ko bàyyi ko rek parce que bëgg na xam lu nekk ci biir dégg na dégg na ko mu ne ubbi bunt bi rek sëñ bi dugg rek ñëw fekk saal bi ñoo rek jël benn canapé toog salaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam waaleykum salaam waaleykum salaam mu xool waa ji taalibe bi taalibe bi xool mu ne mu ne ko ndax mun naa wax ak mbooloo mi mu ne mu ne mu ne waaw waaw waaw mu ne taalibe mu ne nit ñi ki mooy sëriñ jiw ngeen dafa bëgg a wax ak yéen ñu ne waaw ñu ngi ñu toog suuf arrêté affaire bi di ko déglu mu ne ki yoroon animation bi jox ma micro bi kooku jox ko mu ne ko ndax ci mbooloo bi bi am na ku jàng alxuraan gars yi ne waaw waaw góor ñi am nañu ñu ñëpp jàng nañ jàng nañ kay mu ne bu ma yàqee ngeen gàggante ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون ñu ne ko subhanallah sëriñ da ngaa yàq foofu mu ne lan laa yàq ñu ne ko illa liya'budun mu ne yéen ci lan ngeen nekk aay aay bi dégg yàlla nee na binduma nit ñi ak ginne yi moom bu ñu koy jàng mu ne binduma nit ñi ak ginne yi lu dul ñu fo gaa yi ko déet déet sëñ sëñ da ngaa juum de mu ne ah ñu ne ko illa li yaabudun mu ne yaabudun lu muy lu muy tekki mu ne ko yàlla dafa bind jinne yi ak nit ñi pour ñu jaamu mu ne yéen li ngeen di def nii lan la wala wala jaamu da ngeen di fo wala da ngeen di jaamu yàlla ku nekk sëgg mu commencé seen kaw loolu moo am loolu moo nekk ci hikma hikma la sëriñ bi dindee lu bon loolu hikma ne kenn du dindee lu bon lu bon kenn du dindee lu bon doole kenn du dindee lu bon fo orti nit ñi da ngay ñëw ci ñoom wax ak ñoom bil hikma ba ñu xam ne ci lu bon lañ nekk kon ñu bàyyi mais boo ko bëggee dindi safara buy tàkk nga sotti ci essence wala pétrole tàkk mooy bëri rek mais du fay kon bil hikma war rahma ak yërmande hatta laa yufsida man haytu yuridu an yusliha balaa muy yàqu ku bëgg a baax am na noo xamante ne loo ko bëgg a dindee la nga bëggoon def wala fi dañu ne ñoo xam ne boo leen tewee sëgg pot ñu uti sabar bàyyi leen ak pot yi bàyyi leen ak pot yi juróom-benneel ci tomb ci njëriñ yi ñuy jëlee dund yonent yàlla Shuaybu mooy iza daawta una insanan iza daawta insanan fa arada an yasxara minka laa yusarrifka an daawatika fala taltafit li tilka alsuxriya wastamir fi daawati ila allahi subhanahu wa taala wala taxdab li nafsika abadan ngalawaay bu la yàlla dimbalee ngay woote ci yoonu yàlla ngay woo ay nit ñu lay këkkëli di la keke keke di la ree di la sabote ngay sant ay nit nañ jaamu yàlla ñu lay xaqataay loolu bu mu la bu mu la bu mu la tax a découragé bu mu la tayalloo waaw man kay wax dëgg yàlla comme su ma waxee kenn du ma déglu bàyyi naa ko comme bu ma joxee ndigal kenn du ko jëfee bàyyi naa comme kër gi moom bu ma yeewee nit ñi loolu ngay dégg faa yi tey bu ma yeetee julli kenn du jóg bàyyi naa ko dootuma yee kenn kon bu soobee yàlla bu julli jotee ma dem julli ji bàyyi leen déedéet waxuñu la lool de loolu kenn sant ko borom kër waaw dañ leen a muñal te góorgóorlu yokk dëgëral say tànk da ngay xeex seytaane di xeex da ngay këcc iblis di këcc te sa njaboot la wala suñu kër yi daanaka Sénégal amul jàkk buy fees fajar ah wala seen koñ seen jàkk day fees fajar yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow man ni fi laay jullee du fees fajar jàkk buy fees fajar comme aljuma am na seen koñ am na seen dëkk waxuma sax seen koñ dëkk ba léegi am na jàkka buy fees comme ajjuma laa julli fajar waaw julli fajar xanaa lu tax ajjuma dëkk bi fees ba ñu baare dal yi suba fajar du fees ba ñu baare dal yi lu tax ana ñooy julli suñu ajjuma fu ñu nekk ah ah waaw fajar dafa farat kenn war ko julli lu tax ajjuma rek la jumaa yi di fees taat fii fii di julli bi fees ba fii fees fii ci suuf day fees étage bi fees fii yëpp fees tali bi fees lu tax fajar bi rek ana ñu julli ci woon fajar bi ñu ñuy ci problème bal tu'thiruna al-hayata adduna rek lañu bëgg waaw mbokk yi bokk na ci li ñuy jëlee ci dund yonent yàlla Suaybu juróom-benneelu tomb mooy nit ki booy woote ci yoonu yàlla ñu lay décourager ak di la wàññ bul taxaw demal bu gestu ci reetaan yooyu xaqataay yooyu continuer bul mer wootekat du mer ngir boppam nañ def attention bu baax wootekat yi bu leen mer ngir seen bopp doo leen mer ngir yàlla saa yoo meree ngir sa bopp yàlla taxatul yonent bi saa salaam musta mer ngir boppam di danaa ñëw fekk mu toog saaga ko xas ko mu ne teg kañ la daan mer bu ñu xottee xorma yàlla rek nga gis kanam gi soppeeku wootekat ci yoonu yàlla noonu lay mel bul mer ngir sa bopp del mer ngir yàlla juróom-ñaareel mooy yàq blanc di wàññi nat yamnau lmatar wa yastajlibu sadaid jaaykat yi feeg ñi ngi wàññi blanc yi di wàññi natt gi di toppale di triyaane ci li ñuy jaay taw bi dootul wàcc nu mu war a wàccee jafe-jafe dootul jóg ci dëkk bi jàngeen ci ab saar bu yàlla saar la ci wàcc tudde ko suuratul mutaffifiin saaru natt ak pees saar la ci yàlla wàcc bu mët sëkk pour nit ñi ragal yàlla ci wàllu nat yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam mu nett li ñu ci xadis boo xam ne ibnu maaja moo ko génnee cheikh nasir wéral ko mu ne yaa maasara almuhajirin eh yéen muha muhajirin waa muhajir soo déggee baatu muhajir rek mooy ku jóge màkk dem médine gàddaay ñoo ñooy waa muhajir ña nekkoon ma madina ñoo ñooy waa ansaar almuhajirun mooy ñi bàyyi koon màkk gàddaay ànd ak yonent bi ñëw médine ñañ fa fekk ñoo ñooy waa ansaar yonent bi dafa woo ñii waa muhajirin ne leen xisaalun xamsun juróomi jikkoo ngi nii juróomi melokaan ida ubtulitum bi hinna bis bu ngeen reptee ba yàlla nattoo leen ko mu ne waa awuzu billahi an udrikuna man yàlla ma yàlla musal mu fekk ma fi juróom yooyu yàlla bu ma fekk yonte bi muy wax hadis loolu la wax nee na juróomi melokaan a ngi nii bu ngeen reptee ba nit ñi mel ko juróom yooyu yàlla ma yàlla musal man mu ma fiy fekk ñu ne ko bu njëkk mu ne lam tuzhir alfahisatu fi qawmin qat hatta ya'lanu biha illa fasa fihim altaun ay nit duñu feeñal mbon ba mu ne fànn ci mbedd mi illa fasa fihim altaun loolu yàlla dina tasaare seen kaw feebar ba tudd taun mooy lan ak taun mooy ah épidémie sida ngaana mooy li nga gis nii tey saa yu nit ñi defee ak mbon ba mu fës ci mbedd yi kooba mu ne noon mbedd yi mbeddu nguur la ngay romb léegi nit xale bu góor fës xale bu jigéen ci mbedd wala sax ñu tëdd ci mbedd kenn mënu ta wax saa yu nit ñi defee lu bon ba mu fës yeneen bi nee na yàlla teg seen kaw feebar boo xamante ne seen i maam xamuñu ko woon wala aw ja ak ay jafe-jafe allati lam takun madat fi aslaatihim yoo xam ne seeni maam yi paase xamuñu ko woon mu ne walam yanqusul miqyaala wal misaan illa uxizu bisinin wa siddati almauna wa jawri sultaani alayhim xanaa bii moom ci lañ toll bii moom yéen waa Sénégal yéen a ko moom mu ne saa yi nit ñi wàññee balance yi ak nattukaay yi ah loolu moo am tey da ngay gis pot ñu war a jaay kilo ñu noral pot bi ci suuf nga war a romb ci ñuy jaay mango ñu def paan bi ay kii ba mu fees rek juróom mango ci kaw ne la paanu mango mille francs nga nekk ci oto daan ne paan bi ñaata fekk juróomi mango juróom ñaara ci rek ñu ne paan la la ilaha illa allah nga dem ci kii natt balance day tibb daane rek loxoom sonni wala nga gis ñenn ñenn ñor ay balance di lem aiguille yi amatul mat nattkaay yi nga gis dañ ciy sol noral ah kaas yi même bu dee gerte sax nga gis dañuy def ci biir kaas bi këyit dafa ne la kaas gerte fukki dërëm ah jërëjëf gis ngeen gis ngeen cheikh bi lu mu wax mi ngi nii yéen yonent bi mu ne saa yu ngeen wàññee nattukaay yi ak place yi mu ne illa uxizu bi sinin yàlla dina téye ndox mi ñàkk am wa siddatil muuna ak tar bu ñàkk bu bon waaye wa jawri kutaan ak nguur gu dëng seen kaw nguur gu dëng yonent bi moo wax dëgg yéen ci lañ toll mu ngi nii nguur gu dëng wa jawri sultaan alayhim lii yéen man de waxuma ko fii laa ko fekk wax jéem a mag septième siècle la ko yonent bi waxoon wax ji am na junni at ah ak ñeenti téeméeri at ak fanweeri at ak ñett wax ji mu ngi nii dëgg suñu kaw saa yu ngeen bàyyee mooy yenent bi nee na yàlla ne leen teg ay natt ay xiif jafe-jafe waaye yàlla teg seen kaw nguur gu dëng wa jawri sultaani alayhim mu ne walam yamnau zakat nit ñi duñu tere zak azaka joxe azaka génn ko ci seen alam illa muni ul qatra min assamaa lu dul yàlla day téye ndox mi xam ngeen lu tax muy taw pour xar yi béy yi fas yi gaynde yi nekk ci àll bi ñoom dañoo war a naan war a sangu picc yi dañoo war a lekk ah melentaan yi dañoo war a dund yàlla indi taw bi nit ñi defe ne lool la mais xam ngeen ne li muy taw léegi du pour nit ñi parce que jëriñatu leen mu ne walaw lal bahaayimu lam yum taru lam yum tir mu ne bu doon du bàyyi ma yi xoolal baat bi sax daf ko indi mu ne walaw lal bahaayimu bu doon du bàyyi ma yi lam yum tiru asamaan du wàcce ndox kon li ñëw léegi nii jax ci taw bi li ñëw ci taw bi moo tax gis nga yenn saa yi yàlla day bàyyi àll bi ñëw ci capital bi nga xam ne kenn du fi bay mu taw fi ba ba oto oto yi duñ daw gis nga bàyyi fi mu ko war a def mu ne bu doon du bàyyi may sax lu tuuti loolu du am mu ne walam yanqudu ahdallahi fecc wu ñu kóllëre yàlla wa ahdi rasul fecc kóllëre ak yonent bi illa sallata allahu alayhim aduwahum min gayrihim du yàlla dina jël seen i noonu teg seen kaw gis nga tey noonu lislaam yi dëkk boo tourné dañuy rey Israël day rey boo demee Palestine Afghanistan américains yi dañuy rey avion yu amul pilote la ñuy yónnee fekk jàkk juy julli ñu bombardé jàkk yi ñu wax ñu ne dañoo juum dañoo juuma te de erreur quoi bombardement erreur par erreur nit ñëpp toog suba ñu yóbbu ko ci marché bi bombardé ca sax ñu ne dañoo juum parce que avion bi aw kii la quoi télécommande moo koy guidé moo tax day juum yenn saa yi gis nga masjidil aqsa ngi ne moom di yuuxu jàkk ju ñu nangu ay jullit doo ci duggati te mooy troisième jàkk ci l'islam troisième jàkk yàlla de yonent bi nee na su nit ñi jàddee fekk ci kóllëre yàlla fekk ci kóllëre yonent yàlla teg seen kaw seen noonu ma kaana fi aydihim juróomeel mu ne wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi azza wa jal wa yataharraw fi ma anzala allah illa jaala allahu baasahum baynahum nit ñi bu ñu bàyyee atte téere yàlla di atte woo leneen lan mooy xew illa jaala allahu baasahum baynahum yàlla day jël musiba dugal ko seen biir ku jekku nit rey ku njekku jam léegi lu ngeen di dégg léegi reyatuñ sax yematuñ sax ci rey nañ nit mais da ngay dégg ñu ne saam nañ ko ki ma dégg tey ci rajo bi ñuy wax mu ne dañu ne ki ñu reyoon te gisuñu bopp beeg tànk yi nee nañ enquête baa ngi en cours quoi enquête bi am na lu mu commencé feeñal gis nga ana bopp beeg tànk yi léegi yematuñ sax léegi rey nañ nit moom fekk nañ fi nit ku dee léegi moom nekkatul problème xam nga lan mooy problème dañ ko sa niñ ko reyee moom la nit ñi di ñaawal rey nañ nit léegi ñaawal duñ ko dañ koy saamat dañ ko dagg bopp bi lañ yóbbu tànk yi lañ gisul gisuñu xol bi gisuñu làmmiñ bi léegi loolu mooy problème mais rey nañ ko moom du problème gis ngeen li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon mu ne wali siddati xatari hasil amr ndax mbir mi ni mu graawee omar kaana omar ibnu xataab yatajawalu ci suuq bi nafsihi Omar danaan tambaambalu ci mbedd yi ci ci biir marché yi Omar yor yaram wa yatafaqadu almiqyaala wal mizaan muy xool commerçant yi ni ñuy natte ak ni ñuy peese wa yuxriju min assuuq muy génn ci marché bi man wa yuxriju min assuuq man yajidu fi miqyaalihi aw mizaanihi naqsan képp mu fekk sa balance bi nga damm bi nga doonoo leen nga damm balance bi wala nga jël poids boo xam ne du poids wala sa place bi am problème Omar day jël sa place tëj ko ne la yow dootoo ci jaay génn la ci biir xaj yemu ci waaye wa yaqulu laa tamna'u an al matar laa tamna'u an al matar ana commerçant yi dana dugg ci digg marché bi yuuxu ana jaaykat yi ñu ne ñu ngi nii mu ne bu leen tax asamaan bi bañ a taw bu leen tax asamaan bi bañ a taw ragal leen yàlla ci li ngeen di jaay bu ngeen wàññee place yi ak nattukaayu asamaan du taw kon nag ragal leen yàlla ci taw est-ce que ñun am nañ loolu day ah ñun xoolal tey saaku ceeb bi par par par bi ñaar lay jar vingt six mille léegi passé na encore vingt cinq mille yokkante nañ ci mille francs vingt six mille juróomi junne ñaar téeméer fan la jóge ah wala gaz bi quatre mille tout ça fan lañ jëm li yëpp lu ko waral mooy ay bàkkaar yu bari mbokk yi juróom-ñetteelu tomb mooy yanbaghi lil muslim wa daai wa daaiya alsadiq an laa yuxaalifa qawluhu filuhu kii woote ci yoonu yàlla moo xam kilifa diine nga moo xam imaamu jàkk nga moo xam sëriñu daara nga moo xam ustaas nga nga nekk royukaay ci diine fexeel sa wax ak sa jëf di dëppoo xoolal tey fexe nañ nguur gi fexe na ba kilifa diine yi kenn respecté du leen ko wax ñu ne ñii ñii dañ leen a ger sax kenn leen déglu wala loolu imaam yi kenn faale du leen ndax chaque jour ñi fi nekk dañuy fexe def loo xam ne kenn dootul wet nitu diine te nitu diine moom buñ ko wegatul rek ku nekk def lu la neex fekkee kilifa diine kilifa diine gi bu taxawee wax ba pare ah yàlla nee na yonent nee na ñu ne ko ah waaw démb li nga doon def nag mu naan bu leen xool ni ma mel waaye xool leen li ma wax rek loolu musiba la man waxuma leen ne ni ma mel dama leen wax ni yàlla bëgg ak yéen loolu loolu jaratul ngay wax su fekkee loolu rek léegi moo ñu dese di wax ci diine ba pare naan xool leen li ma wax mais bu leen xool ni ma mel weeru koor gi passé benn doomu kilifa diine ci weeru koor dafa màndi ñëw ci marché bii di jël ci suukaru koor benn taalibe teg ko ci place am ak ci mu àndal bëkk néeg bi dugg ci marché bi naan sëriñ diw ñëw na ñoo leen gën jaar bi ko suukaru koor la ñëw ci benn waay bi ma ko doon nekkal mu ne ma tëj sama place ñëw teg ko mu ngi màndi mu ne li ma metti nag du sax li màndi waaye bëkk néeg bi naan bu leen xool ni mu mel waaye xool leen mooy doomu kan ci weeru koor ma ne ko non yow loolu warul woon métti mu ne ma lu tax ma ne ko li la waroon métti mooy ci weeru koor la ko def waaye mooy doomu jiw doomu nuux jubul woon doomu nuux nuux ñi tëdd fii nuux wala gën wala wala nuux gënu leen nuux moo leen gën di doomam a nga safara jabaram a nga safara nuux minal mursalin sayyidul mursalin inna arsalna nuuhan yàlla saar la ko tuddee yeneen ulul azmi mina rusul dooma nga safara kon mbir bi du du du diw moo jur diw rek diw dafa war a baax fal for diw moo ko jur rek dafa war a baax nu jur nit ma nga safara Soaybu Yaaqub dafa jur fukki doom ak ñaar doom yi ñett ñett jub ñu ne ñëw nekk ay kàccoor ba jàpp Yuusuf di ko rey sànni ko ci teen fukki doom ak ñaar wala jàngu leen loolu ci Quran inni raaytu ahda asara kawkaban ahda asara ñaata la gis ngeen ak ñi jigéen ñi mu kon ixwaan yi dañuy xool mbir yi ni ko yàlla waxee mbaa ñu bañ a xool ci kaw mbir bi ci kaw kon nit ki li muy wax na ci jiitu wala yaamur qawmuhu bil karami wa baxil ngay jàngal nit ñi day leen saraxe fekk yow da ngaa nay dee leen dimbalante fekk yow doo joxe dee leen julli te yow doo julli dañuy wax lu baax te doo ko wax loolu du diine dee leen julli ci jàkk te yow doo dem jàkk loolu kenn du ko def julli du ko def kon loolu mooy jàngale bu baax loolu mooy royukaay bu rafet juróom-ñeenteel mooy anna duaat hum aksaru nnaasi taarudan lil hajumat na nga xam ne yéen ñi woote ci yoon yàlla yéen a ëpp nag ñu leen koon kuy woote ci yoon yàlla nag munoo am munoo am ay xarit yu bari taal sa kër mun na ci nekk nga wax nit ñi lu leen neexu ñu bu ñëw guddi taal sa kër taal jàkka ji ngay jullee wala ñu xoj la rey la wala ñu rey sa njaboot wala ñu tas sa sëy wala ñu dàq la fi ngay liggéeyee loolu kuy wax ci yoonu yàlla ku ne bu yeboo nga sóoraale ko kuy wax ci yoonu yàlla te pare woo dee bu yeboo nga xam ne demoo doo dem pareel ñu def la lu nekk pareel ñu bett bett la jam la paaka pareel ñu bett la dóor la yat pareel ñu bett la guddi sotti sa kër essence dugal ci ay pono taal ko wala ñu dóor la bal wala ñu exploser sa oto pareel loolu ndax yonent yi nga doon te yonent yi loolu moo leen daloon am bis kàddu nañ leen ñii rey nañ leen ñii sànni nañ leen ci safara ah saxaaba yonent bi dañ leen a rey dañoo rey Omar dañoo rey Ousmane fekk muy jàng alquran ñu rendi ko dañoo rey Abu Ali dañoo rey Hamza dagg dënd bi dindi xol bi dagg tuñ bi dagg nopp yi dagg làmmiñ bi dagg awra bi ba pare crucifié ko yonent bi tiim ko am naqar trop yonent bi da koo jullee ba jullee ko juróom-ñaar fukki yoon ak ñaar jullee néew juróom-ñaar fukki yoon ak ñaar la ko yonent bi jullee fukkeel te ci la ñuy jeexale mooy inna xelma allahi ala alkafirin yajcaluhum ahyanan yazunnuuna annahum lan yasilu ilayhim cheyan min bashri llahi wa azabihi bu kenn gis dëkk bi yàqu bu kenn gis dëkk bi yàqu nit ñi tooñ yàlla ñu defe ne mbir mi jàmm la bul gis julliwoo wooroo saraxewoo waxoo lu baax sa sa poos fees diis nga yaakaar ne yaa ngi ci jàmm yàlla moo lay moo lay moo lay loolu xale yi di wax yàlla moo lay ottal yàlla moo lay piégé yàlla moo lay këpptël nga bañ a julli yeewu fajar dem jàkk sa dépasse mat nga bañ a woor dépasse bi mat doo feebar dara du la jot kër gi kenn du yeewu fajar julli yàlla bàyyi leen kër gi kenn du feebar yow feebaroo yàlla da lay këpptël gis nga bis bu la dóoree rek yëf yi pare loolu lañ koy jàng ci histoire yi léegi nag nit ñi li leen dal mooy dëkk bi nit ñi dañuy mooy yàlla ba pare boo waxee ñu ne ah dëkk bi jàmm rek fi nekk ndax ñi fi tëdd dañuy fàtte yàlla subhanahu wa taala du xool nit ku tëdd fenn bu doon loolu la tey Irak a ngi ne xam ngeen ñaata jullit ñoo fa dee ci juróomi at yi ñu génn ñaata jullit la fa américain rek un million ak genn wàll liñ fa taal ay jàkk liñ fa rey ci ay jigéen ak ay góor Afghanistan barki démb démb démb mu ngi ci internet bi li may wax nii ku jóg nii nga dem Sénégal benn soldat américain moo bàyyi ba nii rek nii heure yi mu jóg su ci benn kër rey fukki nit ak ñett kër gi ñëpp la rey même biir da leen rey fukki nit ak ñett la rey kër gi kenn génn Imam Ali fa lañ ko suul kon nañ bàyyi xel ne nit ñi bu ñu moyee yàlla yàlla du leen du xool seeni maam fekkoon yàlla day xool baay wala mu xool maam keroog ba muy alag doomu nuur mu xool baayam baayam a ngi taxaw naan ko yow yàlla sama doom a ngi nii te ci man la bokk te xam naa ne tey yow li nga wax dëgg la inna waadaka alxaq inna ibni min wa min ahli lan la ko yàlla wax kii bokkoo ak yow dara innahu laysa min ahli waaw muy wax ak moom rek wa xaala baynahuma mawjun benn vague la yàlla yëkkati jaarale ko digganteem ak doom ji yenn doom ji di sol suuf suuf mu lam kon stratégie la bu yàlla di teral nit ñi nit ñi di mooy yàlla te seen dépense du manqué nga bañ a julli sa soxla yi duñ julli kër gi kenn du julli fajar kenn du waxuma sax fajar kenn dafa dul nekk ci lislaam sax waaye yàlla bàyyi kër gi kër gi naat waaye yar baa ngi ñëw te bu ko yàlla dóoree rek kër gi ràpp loolu moo tax bu ñu naagu suñu borom subhanahu wa taala day wax ne bu leen naagu asamaan si taw dëkk bi nëtëx firi yi ñor tool yi naat te topp leen ma ngeen defe ne baax na déedéet man dama mën a muñ man yàlla yàlla du koo xam ne da nga koy tooñ tey rek bañ julli woo suba rek mu rey la subaat déedéet yàlla du kooku yàlla mën na laa bàyyi Ibrahima yàlla lan la xuloo woon ak moom benn gan bu mu am togg ba mu ñor li bismillah nañu nañu nañu nañu nañu nañu reer waa ji ne ko bismillah man waxuma bismillah de lu tax mu ne ko man damaa gëmut yàlla li nga gëm Ibrahima ne ko kon doog lekk ne ko mu ñibbi gàddu ay bagage am départ yàlla ne Ibrahima yaa ma jaaxal Ibrahima nekk nii nga mel Ibrahima ne yàlla bi yéeféer la mu ne ko ba mu juddoo ba ñu mu toll maa koy dundal musta manqué yow munoo mel ni munoo maa roy yow Ibrahima ndekk yow nii nga mel rek Ibrahima départ wëri waaj di daw ba génn buntu dëkk bi fekk waa yéen ay bagage la ja jàppaleen ma waaye waaye na ko lan la mu ne nañ dem nga lekk mu ne déedéet lekk yow loo ma toppee sax mu ne ko sama borom ma xas sama borom nee na ba nga dundee ba nga toll nii moo lay dundal te musul manqué man munu maa mel noonu waa ji ne tegu jaag mu ne kon yàlla noonu la ma jàppee mu ne ah loolu la wax de waa ji noonu la tuubi kon mbokk yi fi la ñuy yem tey incha allah ci dars bi ñu ñaan yàlla mu def suñu dégg ak topp loolu lañ doon jëlee ci dund yonent yàlla Shuaybu incha allah dars bi di ñëw ñu ngi jël yonent yàlla Yaqub ak Yusuf yal nañu yàlla may ñu fekke asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu